Dimoka, du vrai café, du bon café, les capsules Dimoka. Jimoka, du vrai café travaillé dans nos usines avec les normes. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka. Hmm. du vrai café. Oui, le café Jimoka, merveilleusement bien travaillé à l'instant même. Dégustez du café Jimoka. Le café Jimoka, réputé à travers le monde. Jimoka, deux voies Liberté 6 en face SAMU municipal. 78 302 59 59 78 591 00 00 78 592 00 00. Disponible aussi dans les station EDK. Le café Jimoka, distribué à travers le monde. Le vrai café, c'est nous. Nos machines à café Jimoka, hmm, du vrai café. Jimoka, Moulin de Yamale yamaleen yamaleen sa doom bi ci kër gi yamaleen sa doom bi ci kër gi sa ñaareel bi ci kër gi yamaleen sa doom bi ci kër gi yamaleen yamaleen yamaleen yamaleen waa Tuuba yamaleen xoolal tonton Tafa li mu def jar na si dëgër naam. caa fanaan ci néeg bi moom ci cuisine bi sax a tane danga xam ne xale boo xamante ni kenn du nelaw yóbbu ma sama papa yóbbu ma sama papa rek. ba moom rek la xam nag. yow lu dara ba moom rek la xam. ne yaayam daa sëy si fii loolu da ci war a bàyyi xel bu baax moom tam loo xam ne tamit daal day na waar daal baax na maa ngi ñëw dem. ah waaw papa yow yow nit nga. ci la. mais da ngay dem noonu bàyyi doomu bàyyi dépense. bu nekk nii dërëm fanaanu ma ko dërëm. loolu lii 1700 2700. 2700 te waree aye tey de waree war a togg de moo aye tey de. waaye lii ah. la lii dañ ciy omelette. 2000 ngay ndekkee xale bi. ci lay omelette demal. ah lii day bëgg a de ndekkee 2000 francs. mais lan nga bëgg ma def dama yorul ay gan nag danga koy sóoraale da nga war di joxe dépense normale. waaw loo bëgg ma jëndal la gerte. lan nga bëgg tàngal na loo bëgg. te mëna jëndal hamburger ba ngëm ak boisson ah ah yaay ah, mhm. sama dom ak lim mu laaj seer na di ah waaw loolu la bëgg hamburger hamburger ba waaw mi ngi tawé mi ngi tawé wuy ma ni jay ni jay papa dimbali ma wéy waal sama yéré yi ak sama soutien gorge mi ngi ci côté bi ci bu lan sama soutien gorge mi ngi ci côté bi waa dinaa ko wéri ne la ñuy weer ay système poste rek. ñàkk a fayda. ci lan. foog dégguma la. mi ngi taw système bi naa ko wér xanaa na si boole silib bëgg xamal dépasse bi damay dem marché. dafa naaj de te dama yàkkamti. waaye defal na nga daan def. nga ni dégguma la. defal na nga daan def. dakk na yàgg na. ba nga amé sa ñak da am sa jogé ni da ngay tak ñaaré ré yaay waxuma ben dank fi sama kër la nu ma neex la fi wax lu ma neex la fi def sama yoon nekk su lo lijjantuma ka ba nga jogé ba tak sa ñaaré da ngay assumer ses responsabilités joxe fi joxe fi lama daan def dak na yag na légui luma ñak sama bop sama njabot sama bu ko wéré mo da nga sama yoon nekk su lo lijjantuma ka yow ya wér sa bop ndax amo dara mat la won ni da ngay tak ñaaré ya wér sa bop wa kay sama dépasse ma xaro bis bu ma xaro doo ko def léegi duma la sax téye damay watu nen fa la nekk si li ma neex. dabalal waaw kay lii lan la <laughs> waaw doo njaay. wala li moom am laay joxe. 700. añew ma fi. 700 añew ma fi moom ngay joxe fi ah, dama fi añewul sax dama lay laaj ndax moom ngay joxe fii. wala waxal ndànk yow say naw leen. yow xanaa yow mënoo maa bàyyi yow yaakaar nga waaye man ragaluma ka laa waxuma benn ndànk fii sama kër la nu neex laa fi waxee yaakaar tàppat waaye du man. 700 nga jox dépasse. moom 700 moom laa yor moom laa yor. lii lii rusoo koo la lii rusoo koo la. suum bi biir bu fenn. sama biir sama je njaboot dama si ñamu suukar xalaatuma ko sax là ju zone ni fay da bay bëgg Hey, why, Elisa Elisa this is ceebu démb bi fii wuuwe xam nga ceeb dafa deewoon ci réew mi um fii yaa yaa dekkalaat ceeb to Sénégal waaye nag xarit jàllaaw sa yaay kooku ceeb rek la man loolu oh, de am na kenn dàqu la togg sa yaay te dëgg dëgg xam have bu bu njëkk ba mag mat ba mu ñor xomm ñu jël bisa. takkub bisaab tekk ci Hujan ceeb suf. xóonja ne ci suuf gejje geje beur bi. ay yakuna mo chat na mo chat deena dia. way ci Dakar bi de boko ko rek. dëggale dëggale. dëggale ah oh cey ceeb. yak nañ ceeb legi bonjour. bonjour. hey na mu. ça va. ça va. si toga merci beaucoup. salaamaaleykum. alaykum naa la gis. maa ngi nii. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm. Babacar. Eh? kii mooy sama borom kër. waa ju baax la tudd. Ah. Mhm, mooy sama jëkkër ndeysaan ku baax. bëgg ma ba bëgg a dee. wax dëgg yàlla. ah baax. kii mooy Babacar. sama ex jëkkër la. moom laa doon sëyal moom laa tàggoon. moom mooy euh, Pape Ndeye. moom tamit ku baax xanaa kay. yàllaa weddi rek. mais ku baax la dëgg yàlla. na nga def. ça si jàpp ça va bien. ça va Oh, fi eh, ya, eh, nah, mau tanga. Ala ko tang. Xana mau len klim. Ko ta tangul nak de. Tangul de. Papa war na monter clim bi sax xamna demain inshallah. Ah papa? kasih. papa. Papa. Terima kasih. Terima kasih. mais sinon ana ndey yow mau namu mala sama dom rek la nam kase deug la kay ndey mi ngi ci bi ndey ndey naam papa papa ñëw na papa ñëw na. nga namoon nga ma. góor namoon nga ma. waaw. yaa ma doon envoyé vocal sa téléphone yaay naa ma papa kañ ngay ñëw. bien sûr naka fii mii moom temps yi dafa ñuul la. dafa ñuul nii. dafa ñuul. nag de. dafa ñuul temps yi. bébé taxawal waaw te yére bi nga solal nii yére bi dafa gudd ko suuf. li warul mën na cee faxasul mën naa daanu. ah tamit yéen sama sama sama doom ji waaye xale boo ko yoree da nga koy da nga koy da nga koy saytu di ko toppatoo waay. <laughs> Ah, sëñ bi nga baal ma. yow mii lislaam rey na la rek. kii day sëy. kii jabaru jàmbur la. <laughs> dégg li ma la wax. kena muju tay na ngay tegal sa tànk fi ci kër gi wax la tànk ak da clim ak yow mo nopi rek nga defa ne jàmbat wala wala man man vieillard vieillard la man je suis jeune comme toi papa yow tamit deug nga la ma la wax les chaay ta torompo daf sa long man nanda daa tàng yow ya pendre sa ya, bop yow da ngay xaru tanga wi été bi na di rey nit ñi nga def sa long man ne ko paludisme papa yow tamit xanaa bo du kër jabal nga simi say crampon ci bedd bi papa xam nga rek il faut bien organiser tes paroles hein? la langue avant de parler mais non, la ngay waxe wa jeex na nak papa jeex na yow tamit bon grave je sais que. li du dara. am problème mais bon jusqu'au dimanche dama bëgg préparer bébé. bon boo bëggee sax aussi nga ñu àndaale ñu dem Lac changer air parce que je vois que moom un peu stressé. xam eh. nga xool boobu langage kan jaga su mën a nekk xool boobu langage kan jaga. Eh? amul benn problème loolu dara dinaa. ko xool ak papa ah sa chocolat yaa ngi nii. boo c'est pour elle ah. ah moo ko moom. waaw d'accord. oui boo amee la soxla rek nga xose yaay mu wax ma ko dégg nga mi ngi gunge papa kanjam. allez. merci góor gi maa ngi eh eh kaay la yem leen fii kaay defal ma café kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay ñëwal fii mi ngi mi ngi taw sax kaay kaay allez au revoir ndey dugal ci biir demal waaye papa yow ya, lii maa sa jàmm la ci oh, lan yow li nga def dara rafetu si ci lan non li nga def moom dara rafetu si la la ci rafetu ya, yow naka la nit ki di ñëwee di wax nga nekk fi di wax yenn yi xam nga luma la bëgg xamal buma wacc sama bop ba nga dafa ne man dama ñak fayda doon ngeen sey tas ngeen na yam ci kërëm ngay yam fi ngay sey to fi da nga jeex ak ñe man li dem ah sa yaram fu ne xol nako fi da ñuul ak fi da xonx ak fi da maroog pour lan lolu ci jabru jambur li ngay def mom rafetul dara na nga respecter sa langage suñu rek ñu xol nuñ def eh nañ xol nuñ def nañ xol nuñ def ngay Dakar defe na man façon gars yi xaw ma leen ñam naa ko neex na banaa ko daa am fenn ah, ku mel ni yow koy wacc na la moo xam ay eh, eh, eh, ku koy seeta sa doom mu ne jour buy seeta doom xoj bopp daa tàng daa kilim ah, di ñaq di teg camembert ba yàqul loolu yëpp ma koy muñ ah camembert amati camembert xëñ xunu fekk Moulin len doon série yamale ak Jimoka du vrai café du bon café les capsules Jimoka Jimoka, du vrai café travaillé dans nos usines avec les normes. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka. Hmm. du vrai café. Oui, le café Jimoka, merveilleusement bien travaillé à l'instant même. Dégustez du café Jimoka. Le café Jimoka, réputé à travers le monde. Jimoka, deux voies Liberté 6 en face SAMU municipal. 78 302 59 59 78 591 00 00 78 592 00 00. Disponible aussi dans les Station EDK. Le café Jimoka, distribué à travers le monde. Le vrai café, c'est nous. Nos machines à café Jimoka, hmm, du vrai café.